mbokk yi seetaan l'injustice muy law caaw askan bàkkaar la bàkkaar la boo xam ne bàkkaar collectif la mboolem ñooy taxaw di seetaan ña ngay jël seen wall wàll ca tooñaange nga ñu tëjee nag ne état yii ay ndénkaane la yéena leen dénk pouvoir pour benn durée donnée ndiir soosu ngeen leen dénk pouvoir yàlla daf leen a sant ne day leen leen contrôler feeg ñu ngi koy jëfandikoo ci anam goo xam ne yërëm doomu aadama ya la jàppale doomu aadama ya la loruñ ca dimbale leen buur yooyu jàppale leen leen ker buñ ko jëfandikoo ci loo xam ne nag lor doomu aadama ya la jàpp leen ci seen loxo kon loolu mooy diina diina du yàccaaral diina du seetaan ñu ngi wax nag ne nanu toppatoowaat paj mi ba lii am ci semaine bii bañ fee amati muy soxna su dem ba nekk ci mucc ñu seetaan ko ba mu alaku loolu te at mu jot ñu dagg nangami milliard waxuñ fukki milliard de déedéet ay fanweeri milliard de déedéet téeméeri de déedéet lu jege ñaari téeméeri milliards ne nañ ko def ci santé at mu jot ñu dagg lu toll noonu jigéen dem di matu ñu seetaan ko ba alku loolu responsabilité collective ci suñ kaw la këpp ñun ñëpp kon yéen ñiñ dénk pouvoir yooyu dénk leen budget yooyu jël leen yooyu yii budget yooyu yii ngeen di ko dimbale doomu aadama yi atte yii nga xam ne it kumba am ndey ak kumba amul ndey la nafi fi jóg yëpp ñun nag lii lañ man yàlla xam na ne ñetteelu martaba ba muy lan bañ ci xol ñëpp ko man moom waaye ñun lii lañ man wax dénoncé def na nu wàcc nan ki mënta dénoncé itam yàlla ko yàlla may xolu mu bañ lii fi nekk ci di tooñaange mbir mi nag boo ko bañee doo ko dëgëral doo ko soutenir ker bu ñu taxawaatee di laajaat puubaar xañ leen leen ko loolu dañ koy wax ca kaw képp kuñ dénk suñu pouvoir mu war ñoo doxalal dëgg doxalalut ñu ko ker bu dénkaane waat jotee xañ leen ko ko seetaat keneen da ngeen mos a dajeeg ñu baax hada wa axiru daawaana an alhamdulillahi rabbil alamin allahuma salli wa sallim wa barik ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa ashaabihi ajmain wéy leen di abonné ci suñu chaîne bi di Fafa TV ngir ngeen mën a jot suñuy vidéo